madame a Dièye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Jacques. yow yaay njiital mouvement national jigéen yi bokk ci parti euh, Pastef les Patriotes ñu ku ab dal gannaaw nag ba ñu bàyyee Ousmane Sonko boobu ak léegi ci nag doxu jàmm bi nga xamante ne euh, bokk na ci ñi ko doon def kilifa diine yi waaye ay waxtu a ngi ni wala sax ay fan ñu gisaat ni ay convocation tàmbali na jip jëmale ko ci ay membre yu FRAPP waaye tamit yu mouvement démocratique am na sax kenn ci ñeen ki yor protocole président Ousmane Sonko mi ñu wolu ndax loolu jàppoo ni mën naa indi gàllankoor ci dal bi ñu doon sàkku ba kilifa yi sax bokk ci. jërëjëf Jacques euh, maa ngi lay xamal ni dégg nañu ni voilà am na ñu ñu continuer di leen woo maanaam euh, la woote ci ne waaw jàppaay nañu lépp lu ñu jàppoon. opposition bi bàyyi ko moom ci lu leer ci lu kenn mënut a wax ni euh, euh, dellu na ci ginnaaw pouvoir bi moom mi ngi continuer ay machination mi ngi continuer nekk ci li nga xamante ni moom daf ko jàppee euh, xoqatal ak euh, noggatu ak jaay doole euh, dëgg la sunu chargé du protocole Jibi Gueye Ndiaye woo nañ ko ci téléphone ne ko convoqué nañ la waaye moom mi ngi xaar ñu indil ko kayit bi nga xamante ne danañ ko jox ci ka war indi bu ko jotee mu daal di wuy ji waaye nag loolu daal boo maamee lu ma ciy joxe. Mm-hmm. comme xalaat mm-hmm. mooy jàpp nañ ne bu de jox nañu woon sëñ Muntaxa cër Mm-hmm. bi nga xamante ne kuy sénégalais war nga ko koo jox ndax moo fi sunu sëriñ Touba. Mm-hmm. Euh, waroon nañoo jël loolu teg ko ci suuf ndax kat sëñ bi li mu wax dafa leer nañu jël lépp teg ko ci suuf. Mm-hmm. te sëñ bi bu ko leeroon ni am na loo xam ne jaaru ci yoon wala loo xamante ne setul jëm ci Ousmane sonk wala mu jugi ci ñoom du ne nañu jël wax ji teg ko ci suuf. waaye nag kilifa moom da koy am rek wala ñu ñàkk ko. ndax yaakaar nga ne lii mën naa yeewaat fitna ci réew mi. waaw mën na ko yeewaat kañ ndax euh, bu fekkente ne dañoo fekk sénégalais boo xam ne moom dafa nekkoon ci dara. ñëpp ñaan ñu ne bàyyi leen ñun ñu bàyyi euh, ne léegi Sénégal jaral nañu lu nekk te it du ñun ñi ñooy taal Sénégal du ñun ñii ñooy def lu yëngal réew mi euh, bu ñu la woowee fekk la fi nga toog nag di la xokkatal mbaa ngay puus ñu ba ñu sëcc ci miir bi euh, faaw nga wëlbatiku jàkkaarloog ñoom mm-hmm. te Jibril Njaay mii nga xam ni convoqué nañ ko kat euh, wax dëgg yàlla dafa dul koo xamante ne nii war nañ koo seetaan ndax moom bokk na ci ñiy gën a dox jàmm ci parti bi mm-hmm. bokk na ci ñi nga xamante ni moom bañ nañ ko dañ koy woy le pacificateur donc boo amee luñ koy doyee war nañ koo teg ci yoon war nañ koo mën déglu sax naam waaye ñu teg ci yoon ba xam lan la mu mënu leen a tontu affaire ci loolu. Eh, seen wàllu bopp Pastef ndaxam am na ñenn ci seen membre ba léegi yu nekk ci loxol yoon. Euh, ci ñi ma xam daal euh, ñi ne woon ci zone région wu Dakar moom. Mhm. Euh, bàyyi nañu ñëpp. waaye ci biir gox goxaat yi. Mhm. am na ci xëy na ñoo xamante ne ñu nga fa des waaye li leer ba leer mooy xam naa ne dinañ leen bàyyi ci lu dul yàgg. waaye daal bu baax. waa ñu ngi leen di taxaw taxaw bi weesuwul nekk fa nga nekkoon dañ la fa daan fekk saa su ne euh, sa lekk sa lépp ñoo koy yor waaye taxawu bi fekk la sa njaboot ñi nga xam ne ñu ngi woon ci biir yàgg fa seeti nañu seen njaboot seeti seen waa mais ku ci nekk aussi bi nga génnee fekk nañ la sa kër ak sa njaboot ak sa waa ba tax na surtout ñun suñu côté jigéen ñi ñi nga xamante ni seen jëkkër yi sax xawoon nañu gis seen bopp tuuti mm. commencé di seetaat seen diggante soxna ak parti bi mm. ba ñu demee seeti ji leen dañoo gën a taxawaat gën leen a dooleelaat ne leen waaw kon fi mu nekk nii dénk wóolu nañ leen te may nañ leen euh, jox nañ leen maanaam sunu sunu sunu euh, ndigal mm. pour ngeen yeggali ci xeex bi ngeen xamante ni yéen a ngi fan yi wees ay kàddu yi nga xamante ne kilifa ñenn yi sax bokk ci nguur gi di ko yëkkati mooy kàddu yi nga xamante mën nañ koo méngale sax wàllub kon par parlo ah, kàddu ethniciste wala régionaliste naka la ko Pastef jàngatee euh, loolu daal liñ ko mën a jàngatee mm. mooy ay propos yoo xam ne daal man day tiital na ma te kuy sénégalais bëgg Sénégal dina la tiital ndax ñun ñii ba ñuy dem di manifester lu ne wax nañ ñu ko naa da ngeen bëgg def loo xam ne réew mi fii da dafiy am wala xeex dafiy am te ñun booba da ñoo dóor rek ñu ne lu tax ngeen ñuy dóor dal suñu kaw ñu ne leen du fi amee ndax sonal ngeen ñu yàgg ngeen ñoo def ñu bañ waaye yi nga xamante ni mooy propos yi ma yi nga wax nii jege jege euh, nguur gi sa rëkk ci Macky Sall di ko wax ku mel waa jooju sant sow ba mu demee sa fuuta lam fa wax jumbu dumbori sow xaw ma man turam bi sax bëgguma ko di tudd mais keneen ku mel ni euh, le ministre Sall maître Malick Sall am nañu ay wax yoo xamante ni waxuma sax waxu ethnie waaye ko am njaboot di ko wax war nañoo yërëm njabootam parce que kilifa du wax yenn yi kilifa warul di wax lu doomam di déggee di ko xeeb mbaa ëllëg mu di ko def mu mën koo indil musiba ndax xeet yëpp am ci Sénégal xeet yëpp bokk yam ci Sénégal kon bu ñu bëggee indi loolu ba mu am ay étudiants yoo xamante ni ñu jàng am xel am am xam-xam dem di xeex-xeex yoo xam ne yow man diwu séeréer la ci joolaa la c'est alarmant c'est inquiétant et c'est dramatique hmm. kon da Macky Sall bu fekkente ne ñooñu wax loolu warna am lu mu taxawee ak askan daf leen war a suñu daf leen war a sanctionné et je l'exige au nom de toutes ni femmes yi nga xamante ne maa ngi ànd ak ñoom ñooñu dañu war a summi seen bopp. ji hmm. jii Ousmane Sonko ñu ngi koy topp ba summi malaan bëgg summi malaan kiraayam à l' assemblée nationale mais xam nga ne ministre bu wax lii wala wala ku jege Macky Sall di député euh, war nañ laa woo tekki sa ndombal tànk parce que lii rek loolu rek mën naa taalum réew kon ñaawlu nañ ko doon loo xamante ne nii c'est pour une république nekkoon ci république dëgg dëgg mhm. waaye nag ñu ngi ci nguur Macky Sall. Euh, ba ñu ko bàyyee Ousmane Sonko booba léegi ñu gis ni euh, tàmbali na ay euh, doxub nemmeeku di dajeek leader opposition yu bëri waaye tamit ñu nekk ci société civile bi lan lay wër moom seen njiit. jàmm salaam rek lay wër. moom li muy wër mooy. dafa nekk ci jafe-jafe. gos su nekk xajul ci tuuma. gor su nekk bu ñu dara dalee sa kaw mu metti lool metti ci sa xol metti ci sa chair nga am dignité taxaw jàkkaarloog sa askan wax ak ñoom askan bi yëpp wëlbati ko ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ñoo fi nekkal askan bi di politiciens yi mu yenn parti politique yi di mouvement yi di di di société civile bi ci bés bu njëkk ba keroog jooju ñoo tànk man lim ci ku mel ni Cheikh Cheikh Tidiane Dieye keroog jooju Cheikh maak moom ñoo ànd a nekk ci saal bi ñuy dem ko ñëw di jaabante te mënoon na ni sama yoon newu ci mais keroog ci xolam loo xamante ni injustice tax mu taxaw kon ñooñu topp naa ni bu amee lu jaado lu Ousmane Sonko war a def mooy dem seeti leen euh, euh, nemmeeku leen ndax euh, nit bu la lebalee lu baax ne ko jërëjëf jaadu na ci ndax ay góor yuy ànd ànd ànd boo xam ne ku nekk da ngay yéene sa morom jàmm kii bu la taxawoo ci waxtu li la war mooy boo nekkee ci jàmm féex nga ñëw ne ko jërëjëf nemmeeku tuur boobu rek lay def ndax moom sénégalais yi rek ñoo tax muy def lii muy def kon wax leen jukk ndax wax na ko ci baat man sénégalais fi mu jaar yëpp rawatina ci kanamu yeneen njiital opposition yi kàddu gi daanaka benn la muy booloo ngir jële fi njiitu réew mi Macky Sall booloo boobu opposition bi di woote ndax yaakaar nga ni mën na nekk. flotte bi kat au niveau euh, na booloo euh, euh, bi nga xamante ne ñëpp génn nañu waaye am na front boo xamante ne mooy bu nga xamante foog ni ñoo Pastef bokk nañu ADN ñi foog ni projet de société Pastef ñoom gis seen bopp ñoo taxaw tënk ko ànd ànd boo xamante ni ñëpp ci bokk yem mais ànd ci ànd boo xamante ni képp ku ñu laal ku bokk ci ñoom danañ ci taxaw taxawaay ba mat sëkk ba tax na xale général bi bi ba euh, euh, ay ay euh, ndawam pour ñu ñëw waxtaan ci ci mbirum xeex mi ñaan ñu nangu dañoo war taxaw nangu mais léegi nag moom yëkkati na lu tolloo juróom fukki million teg que ñi nga xam ne gaañ-gaañ am na ci ñoom wala loraange am na ci ñoom te sonn nañu ko ñu taxaw ci seen wet na mu waree ñoom ñooñu la ñu waxal kon nag je crois que front boobu doon na front bi nga xam ne dama naan montre yi bokk heure ñoo fa nekk mm. ndax ñu nga xamante ne la Sénégal moo leen tax a jóg patriotisme kese kese kese ak jëmale Sénégal ci kanam moo leen tax a jóg front boobu nag li ñuy ñaan yàlla mm-hmm. li ñuy ñaan yàlla mooy front bi gën a yaatoo ndax dafay tàmbali mu gën a yaatoo ba képp foo xam ne sénégalais bu amoon euh, baat wala nga am mbooloo wala nga am gis-gis sa taxawaay pour jëmale Sénégal kanam nga ñëw bokk ci ñu ànd def ko front boo xam ne dañuy jàkkaarloo pouvoir bi mun leen wax nag ne leen luy jot jot na te dafa doy ngeen jóge fi hmm. bàyyi Sénégal ay doom diñ Sénégal diñ doomu Sénégal yore yore yore reenu réew mi laaj bi mooy ndax dina wëy ndax yàgg nañu gis fii ay boole opposition ñu dem ba ci cappaandaw nga maanaam bu ñu yeggee ci élection tasaaroo am euh, loolu moom mënut a ñàkk ndax xam nga Sénégal hmm. day day day day euh, euh, dëkk boo xam ne dëkku bañkat la ñiin ànd ci front bi ànduñu ci parce que dañu ne dañoo bëgg euh, euh, tabb kenn 2024 mu jiite réew mi déedéet c'est un front naturel c'est-à-dire de politiciens boo xam ne bu bees la wala bu beesul it ñeneen ñi nekkoon feneen dem ba xam ne nekk bokkuñu fa génnee fa seen bopp ñëw mën a rejoindre front bu mel nii donc muy race boobu nga xamante ni Sénégal kese kese kese kese mooy seen ittee objectif bu njëkk bi mooy àndu xeex li fi ne li fi ne nag mooy euh, ki nga xamante ni moom dañ koo dénk réew mi mu dem ba def bopp mbuur dem ba jël pouvoir boo xamante ni nii kenn mësu gis jox ko boppam dem ba moom ci boppam sax doon un danger pour lui-même doon un danger pour le Sénégal front bi mën na ci am taxawaay bu ma sëkk. Hmm. taxaw jàkkaarloog moom ni ko dund. ndax njiit da ngay déglu da ngay déglu sa askan te front bi foog naa ni bu dajee dana doon front bi nga xamante ne askan wi yëpp dina ci gis boppam. Mm. léegi nag bu ñu yeggee ba ci ay élection mm. euh, yaakaar naa ni euh, ku nekk ki nga mën a àndal di nga àndal moom man yaa ñaan yàlla nag mu doon front bi. benn front bi. waaye nag bu ñu demee ba ñii gis ne ñii la ñu war a demee wala nee la war a demee bu intérêt Sénégal taxawee dañuy booloo waat rek waaye ku nekk sañ ngaa xool ni ngay doxee nga doxee ko. ñuy laam-laamee ba léegi sax daanaka lu des pour ñu jëmmal ko bariwul local yi nga xamante ne dañ ko war a toxalaat ndax plénière assemblée sax wolu nañ ko ajuma ji lu ciy taxawaayu Pastef. Euh, taxawaayu Pastef daal mook euh, ñi nga xamante ne ñoo bokk gis-gis mooy lànk ba banku parce ko bàyyee mu dina doon nag vraiment loo xam ne sans précédent lañ doon ci réew mi lu fi musuta am parce que mënuñu ñetti yoon ñuy puus élection euh, municipale te euh, mandat bi nga xam ni euh, conseil municipal yi yoroon nañ ko romb na ci ñaari at ñu dem ba fi mu nekkee nii am na ñu commencé sax di ko di ko di ko laam-laamee ci ci seen biir kon dañu naan nag lu ëpp tuuru Macky Sall li ko li ko sénégalais yi may dafa bari dafa ëpp waaye moom mooy ki nga xam ne da nga koy may lu jabe boo xam fi ni yam ndax nit duñ la may lépp nga jël lépp ay nawleem la nekkal ci réew mi donc dafa war di leen déglu hmm. kon élection yi nga xamante ni bëgg na ko pousse en deux mille vingt deux ñun dañ koy exiger mu dellu ginnaaw te mu taxaw ci deux mille vingt et un bi nga xamante ni deux mille vingt deux dina mën a def élection législative deux mille vingt quatre mu def élection présidentielle te élection présidentielle yooyu mu xam ne bokk ci parce que troisième mandat bi moom lii hmm. dafa waxaat deux mille vingt a ba dem ba deux mille vingt deux hmm. dafay am répétition mais bi mooy bi nga xam ni askan bi ñoo doon dund mu romb ko na defaraat audit bi na ko defar def ci balaa quinze deux mille mu def élection yi ci ayib yoo xamante ni dana ko yëkkati loolu la ci moom en tout cas le plan mhm. wax nag ci parti Pastef bi coowal Ousmane Sonko Adji Sarr juddoo ba léegi yan anam la parti bi nekkee fu ngeen toll. ah man de su ma mënee wax euh, ci ni parti bi toll coow li bi mu amee crise bi am. dëkk bi yëpp yëngatu musuma gis lien de fraternité yu dëgër yi ma gis ci biir Pastef dañoo wëlbatiku ñun ñëpp ku ne jàpp sa loxo morom on bouclier autour de notre président yàlla def nag ba ñu paree ci loolu rek Pastef yàlla da ko may capacité c'est-à-dire appareil yu mooy adapté wu ci situation bu nekk automatiquement dañu tàmbali liggéey bi au niveau national, au niveau des coordinations départementales, mais surtout au niveau des sections communales. Au niveau des mouvements, des familles, des, des jeunes, di enseignants yi comme euh, euh, le mouvement des cadres liggéey bi tàmbali à une vitesse vertigineuse donc li ñuy xaar rek kañ mooy euh, euh, euh, sunu président génn ci xat-xat yi mu nekk pour que mu daal di tàmbali nemmeeku tuuram ndax nag loolu moom kenn mënu ko koo tere ndax doomu Sénégal la war a seeti ay mbokku sénégalais am euh, naa ni moo waraloon coow la nag suñ ko seetee ba ca biir waaye finalement sax dañ ko indil Sénégal ci boppam mu nemmee sukk si ko kon euh, jaadu na bu ñu génnee ci lii yëpp mu daal di continuer def le tour du pays seeti mbokk sénégalais yi nga xamante ni ñii bëgg nañ ko ñii ànd nañoo ko moom ñii am nañu coxeel ci moom pour que le travail continue mm-hmm. loolu Macky Sall bu génnee woon armée bi gën a rëy ci sax kenn mënul tere Sénégalais yi bëgg Ousmane Sonko donc kenn mënu ko tere yëpp mu dem seeti leen. yow yaay njiital mouvement national bi ëmb jigéen yu Pastef madame Maymouna Dieye ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. maa ngi lay fay di la sant bu baax euh, Jacques di sant auditeurs yi.